donc li tax ñu demoon Russie si représenter le Sénégal mais ci aspect artistique parce que ci plat boobu ñun dañu si benn spectacle def si film documentaire boo xam ne dafay jaay Saint-Louis jaay notre façon de, <coughs> de notre art de euh, culinaire ba moo taxoon en Russie on nous a invité la bas mais bu ñu fay dem spectacle lañ fa yóbbu ba euh, fort heureusement l'université culturelle de Moscou nous a contacté retenu ñu pour ñun ñu démarre fa en octobre pour former plus de 3000 étudiants russes yoo xam ni dañu gis culture sénégalaise accroché wu ni ngay solo nii dañ ko bugg solo ni xale yi di fecce dañ ko bugg fecce ni Youssou Ndour wala Wally wala Pape Diouf wala Assane Ndiaye di wooye dañ ko bugg wooye wala Kiné et nous ont coopté pour retourner là-bas vraiment transmettre suñu culture à des étudiants russes parce que ku ne xam na que ni en ce moment <laughs> la Russie fait tout pour vraiment impliquer de mieux les artistes sénégalais donc loolu moo ñu fa yóbbu woon. si bi on a fait dix jours. mais mais mais mais est-ce que ceebu jën ah sur tous les plans. mooy plat bi mooy lekk bi. est-ce que ceebu jën comme comme fecc. est-ce que ceebu jën mi ngi mel ni mu ni mu ni mu meloon quoi dans le temps. parce que ceebu jën ceebu jën ci ceeb. Euh, jën yi dafa doon màgg soble yi dafa doon soble du du du ñàkk. xam nga <laughs> légumes yi dafa daan dafa yomboon quoi pour am ceebu jën dafa yomboon pour am ceebu jën bu rafet ceebu jën ci fecc dafa correctoon mais est-ce que ceebu jën dans sa globalité mi ngi mel comme ni mu meloon. voilà ñun nag loolu. <laughs> Momar. non man dama bëgg dama bëgg. non grand bi. waaw dama bëgg d'abord mu revenir si li ma ko njëkk wax que ni pourquoi nous les artistes. du ñu bokk un peu sur euh, ces combats de lutte parce que ñun on produit et les gens consomment ce que nous produisons.